رفعت أقلامي سنين خادما
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawat na yéen ñi nga xam ne yéen yi baaxoo ànd ak ñun fii ci sunu seen youtube faydu akaabi saalihin noo ngi leen di bëgg a digtal ab ziyaar boo xamante ni cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al Kopki moo ko amaloon di ay jéego yu am solo di jéegoy xam-xam waaye di jéegoy diine waaye di jéegoy tasawuf mu mel ne njabootu Serif Sayer Fall fële ca Tigmantine ñoo amaloon ab waxtaan woo xamante ni ñu ngi ci woowoon borom xam-xam yu bëree bëri yoo xamante ni ñii bàyyi ko nan Sénégal ñii bàyyi ko feneen ci àdduna bi ngir taxawal rek li nga xam ne mooy diine waaye nag soññante waa ci li nga xam ne mooy tasawuf Serif Sayer Fall nag di kilifa gu mag koo xamante ni amoon nag jaxasoog Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al Kopki ci ak dundam ba yàlla dogal nag mu jóge fi kóllëre googu nga xam ne nag doxoon na ci digganteem ak Cheikh Moustapha Diop al Kopki moom la fi sëriñ bi doon dundal tey ji ci wuyu ji woote bi nga xam ne moom la ak njabootam woote woon tey fële ca Mauritanie ci Tigmandine sëriñ Serif Sayer Fall moom nag di koo xamante ni murit la woon la woon boo xamante ni Sëriñ Tuuba la joxoon boppam ba tax na taawam bii sax moo ngi ko tuddee Ahmad Bamba Fall moom mooy ki nga xam ne it moo woote woon bis bi ba Sëriñ Moustapha wuyu ji woon kon duñ def rek lu dégtal leen li nga xam ne moom lañ fa jële woon di ab ziar boo xamante ni jiitaloon nga ko ci ay ñaan ak fi daaw goo xamante ni ci ndigal Serigne Moustapha Diop al Kopki defaloon na ko fa ca barab boobu nga xam ne fa la tëdd di ñaan suñu borom tax ci barkeem ginnaaw bi nga xam ne it jàngal na ko alxuraanu karim def fi daaw googu àndoon na sëriñ bi ak mbooloo ma nga xam ne ñoo fa nekkoon ci addiye joo xamante ni wala barkeelu boo xamante ni Cheikh Moustapha Diop al Kopki moo ko jële woon ca bagage Serigne Touba di suuf soo xamante ni suuf su bàyyi koo ca rawdu Cheikhul Khadim la woon waaye gis nañ ne sëriñ bi yóbbu na ko foofa ca moom wesaare ko ca kaw barab ba di loolu rek xam naa di tegtale kóolóore gi nga xam ne doxoon na ci diggante ñaari kilifa yooyu kon daal ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al Kopki sunu borom yàggal ko ci sunu kanam ba yéene yam am yëpp ci waaru Cheikhul Khadim bi mën ko àggale kon duñ def bàyyi leen nag li nga xam ne moom la ñu bàyyi jële woon foofa ca Tigmandine ba léegi rek mbokk yi ci fàttali sëñ Sayer Fall moomu bokkoon na ci ñi nga xam ne sëñ Saliou Mbacké mii doomi Cheikhul Khadim fonkoon na ko lool ba Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop Kopki jëlee nañ ci moom wax ne bu musaana ñëw sëñ Saliou lépp loo xamante ni moo aju ci yére yi warga da ko koy jox day xool li ci gën a baax mu daal di koy tànn jox ko kilifa googu waaye jox ko wàccuwaayam bu baax a baax ku mel ne tamit Cheikh Mouhamadou Mourtada moom mi nga xam ne it mu al mujahidul akbar la am na day loolu wóolare goo xamante ni doxoon na ci digganteem ak moom kon nag loolu lépp day tegtal maanaam mboor mi nga xam ne Serif Sayer Fall doon na ko xencu mooy mboorum tasawuf waaye tamit doxeenu mag ña kon di ñaan suñu borom taaju ci barkeem
darul nawee sa dàgg kon nag moom ci kilifteefu sëñ sëñ Mourtala Fall bi mo ma bëggoon ñu jàngal ko fukki junneeg ñaari basmala sëñ Tuubaa nee na fidaa la nee na si kilifteefu sëñ Mourtada Fall mu bëggoon ñu def fukki junne ak ñaar basmala ndax Cheikh Khadim ne woon na fidaaw la ñu yéene ko Serif Sayer Fall ñu yéene ko Serif Sayer ak mbooloo ñu tëdd fii kon kon bu ñu xamoon ñu ñaata lañ kenn ku ne ñu mën a séddoo lim bi ñu ñaata.
nee na bu ñu xamee ñaata ñoo fi ne ñu séddoo lim bi ngir mu gën a jàppandi.
kooku kon da nga ko saytu.
ah. ñaata ñu fi ne.
ربنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة waaw kay kon mbokk yi jëmm jot di wax mooy docteur Bamba Fall di taaw ci Serigne Sayer Fall.
waaye am na ngànt yu bare waaye ñu fii tabarkaat daa daan ne
عن هذا هو البيت هو شوصانهم هو كاملين هم الكل اللي هو جاي من قرع تنقل وهي قلنا في السنغال وذا كامل عن عن منبع وصلهم لحق هم فروا جدودهم هم فهمت wallaah nee na mu ngi leen di nuyu bu baax yéen wax ne mu ngi leen di gërëm ni fii cosaanu Annam- gànnaar yëpp fii la ñu cosaan cosaan gi wallahi ايه اجازيهم هم انا بخير اللي احنا اللي لقينا هون احنا مالنا خارجين xaalis انت تعرف wallaahi wallaahi لا خيمتين الله لا هي غير غير.
الحمد لله اللي كنا كاردين لهم بلادهم الى غرق incha allah فهمت
waaw macha allah macha boobu ba allah.
léegi dindiwul loxoom si kër ñaanal gi bu baax rek maanaam doom la si kër gi mais wane na ni doom la si kër gi gànnaar lépp sax moom lépp li nga gànnaar yëpp xamante ni moom sumba na ko loxo mu ngi ci loxoom mu ngi si wallahi te du loxoom kese day ñëw taxaw Taxaw.
ca njëlbeen ba ba bi ñuy pare wallahi macha allah tabaarkalla macha allah li mu fi def lépp mënu ko lim léegi bi ma ko mais laajee ginnaaw léegi yàlla ñëw na- kenn tamit ñëw mu ngi na koy de.
sant bu baax Wallahi.
mu ngi koy ñaanal muy sakku si yéen ngeen انا ñaanal انا ko ماني في كاس taxawaayam صالح ak yéeneem مثلا yàlla ko فوق yàlla mottali ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah sëñ bi nee na mu ngi leen di nuyu di leen ziyaar nee na mënoon naa doyloo si wax ji nga xamante ni moom la mbokkam Cheikh Moustapha Diop wax ndax nee na Cheikh Moustapha bu waxee rek waxaale na ñëpp nee na Cheikh Bamba tamit lu mu wax si leeral doy na sëkk nee na dafay feddali seeni wax ñoom ñaar nee na wolof moo ni fekkee mucc feccee muccul bu fekkee muccatoo mais dafa fekkee ni munoo mel ni ku fekkeewul nee na loolu rek mooy wax ji nee na day feddali li ñu wax ak li suñu papa bi wax Abdallahi wal Amir nee na doy na si seede li Cheikh Moustapha mii wax ak moom mii di wax nee na ñoom ñëpp seen ñaari maam yi la fii la ñu cosaanoo si bërëb bii nee na Sénégal daara joo fa dëgg nee na jàngunu si kenn ku dul si ñaar ñooñu ku jàngul si kenn si ñaar ñooñu kon mu jàng si ku jàng si ñoom nee na Sénégal ba Sénégal yëpp daj nee na kon nag bu nu ñëwee fii si bërëb bi dañoo dellu si cosaan nee na ñu ngi siy sant yàlla bu baax nee na ñuy fàttali tamit góor gi sayar kollëre gi nga xamante ni yàlla boole woon nag ak ñoom mu daa ànd ak Cheikh Mourtada Mbacké daa ànd ak Serigne Mourtada mi moom di fi ñëw daa ànd ak Cheikh Mouhamed Lamine di fi ñëw nee na ba tey jii njaboot ji jàpp kollëre boobu nee na doy na sëg si misaal Cheikh Bamba mi toog nee na ñëw na ba fa mu juddoo mu fekk foofu nee na loolu nag kon moom bu ñëwee tey jii wareefam rek la def nee na mu ngi sant yàlla bu baax jàppandal bi ko yàlla jàppandal ba mu dox jéego yu mel nii nee na mu ngi ñaan yàlla barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baak Cheikhul al Khadim radiyallahu anhu nee na lépp luñ fi ñaan yal na ko yàlla suñu borom nangu te te yal na ko def si xasanaatu Cheikh Sayar Ami Fall ak mbooloo mbokk mi nekk fii wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
waaw kay mbokk yi binaaw bi nga xamee nag jàng naan alxuraanu karim waaye toftal ca fidaaw gi nga xam ne sëñ Moustapha Diop Alkoki joxe woon na ko di loo xamante ni mu ngi ko jëlee ci Serigne Touba danaa daal rek daal jawale ca barab ba nga xam ne mooy barabu Serif Sayer Fall ñuy fàttali tamit ne Serif Sayer Fall bokkoon na ci surafa yi nga xam ne ay cheti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dégg ngeen sànq rek ni ko góorgóorlu waxee ñoom seen cosaanu cosaanu gànnaar gi yëpp benn bopp la woon ñu xam ne ay kilifa lañ woon ñu xamoon lool ci diine waaye nag nekkoon ay surafa di waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen i maam ba léegi waaye teewut ñu daal takkaat seen laxasaay rek ànd ak Serigne Touba ci li nga xam ne moom la woote kon di ñaan rek suñu borom defal ñu taw feex ñun ñëpp rek ban mën a murloo seen i njëriñ yooyu kon sëñ bi ngeen gis noonu rek mu jëm ca barab ba ngir addee ji ma la wax sànq wala barkeelu bi nga xam ne jëlee na ko ca rajo Seelu Xadim indi ko fii ci xabru bi. jërë ngeen jëf ci topp gi nga xam ne dañ koy topp ziar bi nga xam ne Cheikh Moustapha Diop Alkoki defoon na ko fële ca Mauritanie moom ngeen gis noonu mu jël suuf soo xamante ni mi ngi bàyyi ko ca rawdu Seexul Xadiim ca Touba di ko def fii ci xabru Serif Sayer Fall ànd ko mbokki taalibe ak kilifa yi nga xam ne fekk na leen ca barab ba. ok jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen doon topp seen seen faydu akaabiru saalihiin loolu mooy li nga xam ne jël woon nañ ko fële ca Tigmantin ca Mauritanie di ziar bu am solo di ñaan suñu borom mu fekkeloo ñu ko ay ati ati at te at mu ñëw rek dàq ma ca des di ñaan Cheikh Mouhamed El Moustapha Diop Koki alhaadi il xayri suñu borom yàgg suñu kanam ba yéene yim am ak naalim am yëpp mu yeggale ko barkab Cheikhul Khadim
te ñoo xam ne jur gi li ñuy bari bari dañ koy tànn di di ko taaral ba muy téeméer ñi ak fukk ak ñeent kepp ñuy taaraar ba ba muy fukk ñuy taaraar ba muy juróom-ñaar ñuy taaraar ba muy ñett ñuy taaraar ba muy kenn.
ah Ibrahima.
yomb yomb si yomb de.
kenn ki di murit.
ah.
ci ndax Sénégal la dëkk kon.
xamu ko de xamu ko de xamu ko de waaye sëñ sëñ bi loolu teg na ci leen ci leen kon.
wallaahi wallaahi oh maanaam sëñ bi. sëñ bi waaw nag kay nag sëñ bi nag bokku ci nag. nee naa ji koo xam ne njaaloo woo reyoo nit bokkaale woo gëm sëñ Bamba loolu daal maa ngi ko daa wax ceer sëñ jaay may den at te xamoo dara su su su su bés ba njëkk téere ci sëmb ah loolu xanaa jamono ah jamono yàlla de at at rek te xamoo dara téye sëmb gëm ko rek mooy nangul ko ni ni ko yàlla mexal waaw waaw waaw xanaa neex naa def moom xanaa. président Macky Sall soo ko demoon rek xanaa xanaa da nga ne da nga def président moom voilà. ah sëñ bi.
wallaahi waaw ah sëñ sëñ Tuubaa ko. yàlla ñu ko yàlla fayal. amiin bay fayal ñu nag mag ñooñu mu àndaloon ngeen di bay. fayal ñu ñu salaay salaam ngeen di bay. fayal ñu saxaaba ya. ngeen di bay.
amiin dugal ñu ñu ci sirru laa ilaaha illa allahumma Allah.
amiin yaa rabbal aalamiin
nangu leen ñaan.
amiin waaye waaye lu ci njëtaay bi. ci aw yi yàlla na fa am balaa suba.
lil